sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. yaqulu an-nabiyyu alayhi salatu wa salaam. ma taraktu ba'di fitnatan adarru mina ar-rijali bin-nisaa. sallallahu alayka ya rasulallah. wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin. mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom di julli ci sunu yonent muhammad sallallahu alayhi ngi ñaan sunu boroom mu dëkkee dot ci waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam yonent nga xam ni boroom bi def koo yónni ci mujj jamono mu nekk yonent bu mujj amut lenn luy jëriñ xeet bi ila yawm alqiyaama lu dul leeral na ko sallallahu alayhi wa sallam amut luy ak alkande lu dul leeral na ko bàyyi na ci ñu xàll bàyyi nañu ci xàll wu yaa wu leer koo xam ne leeraay ga dafay nuru yemuk guddeeg bëccëg nu ngi ñaan sunu borom mu julli ci yonent boobu dëkkee dot ci waameem xéewal ci kaw yonent boobu alayhi salaatu wasalaam ak ay saxaabaam ak taabiihim bi ixsaanin ila yawmi ddin yonent boobu sunu yàlla yónni woon ci ñun bokk na ci rafetu nu jàngaleem daf ñu doon wax ñun xeetam wi ni moom lay bu fi jógee sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwu fi ci ginnaawam fitna joo xam ni moo gën a mën a lor xeet wi te fitna ji nga xam ni jigéen ñi dañ koy def ci góor yi xadis bi day xadis la bu màgg yaa laytaka woon xadis bi ak mboolem wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam buñ ci yegg rek ñu def ak taxaw seetlu méngale ko ak li ñuy dundu su boobaa kat danañ gën a siggiwaat te xam ni kii kat mag la te mag mu yàlla yónni subhaanahu wa taala ay waxam lépp ay xam ngeen ni mbokk yi borom bi dafa bind kaw suuf waaye wàcce fi góor ak jigéen couple bi suñu borom njëkk a wàcc ci kaw suuf couple góor la ak jigéen muy jëkkër ak jabar loolu rek dafa am njàngale gu rëy goo xam daf koy def ci xolu ñi gëm yàlla ñëpp suñu borom wàccewu fi benn frère ak sœuram suñu borom wàccewu fi baay ak doomam donte mënoon na nekk góor jigéen suñu borom wàccewu fi mag ak rak suñu borom wàccewu fi doomi tànt ak doomi bàjjen waaye suñu borom daf koy wàcce góor ak jigéen gu tudd jëkkër ak jabar muy aadam ak xawa loolu la muy wane mooy borom bi ni mu mooñee doomu aadama ci dundam góor mënul dem bàyyi jigéen jigéen mënul dem bàyyi góor comme kenn mënul dem bàyyi sa morom te dund gi suñu borom bàyyi wunu rek ñu tëral ko suñu bopp ndax moom mi nu bind gën a xam li baax ci ñun ndax alaa yaala man xalaqa wa huwa latifu alxabir suñu borom dafa am aw tër woo xam ne moom la tër bëgg guñu jaar ca suñ ca jaaree dañuy noppalu ba faaw buñ ca jaarul dañuy halku ba faaw suñu borom sàkk góor ak jigéen comme yàlla dafa def kenn ci ñoom ñaar mënut dem bàyyi morom ma suñu borom wut aw yoon woo xam ni ca war a jaar pour ànd ànd gu sérieux muy ànd bu ñuy tuddee dencante muy sëy ànd boobu fii ñu jaar am na ay njariñ yu bari yu mën a jural xeet bi bokk na ci mooy askan bi dana gën di bari te suñu borom bokk na ci xememteef yim nu defal ci sëy mooy di jurante bokk na ci mooy nit ki day sàmp honneur am ak dignitéem parce que juddoo fu la neex ak juddoo ci mbedd mi du bokk ak ñu ne la yaa ngi juddoo ci kër sàngam di mooy sa baay di woy sa maam xam nga yooyu dafa am tuuti yëg-yëg bu muy def ci ki ba am na yoo xam da nga koy jombale sa bopp parce que famille bi nga bokk moo tax waaye bu fekkoon bokkoo ci wenn famille famille ba mbedd ma nga bokk daanaka yu bari doo ko jomb beneen bi ci des duggalante askan ba jaxatoo am kii kenn xamul kuy kuy yaayam ku kooku kat wax dëgg yàlla dafay dàq loola ak ay njëriñ yoo xamante ni kenn xamu beneen bi ci des mooy jàngoro yu musiba yi mën a wataaroo yooyu ala kulli xaal dafay indi ay njëriñ yu bari comme ni ñàkk koo def di yu bari jigéen nag mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fiy jóge dañu bàyyiwuma sama gannaaw fitna joo xam ni moo gën a mën a yàq aw askan ju mel ni fitna jigéen di yàqee aw askan ci góor yàlla ci subhaanahu wa taala bi mu bindee jigéen dafa def ab jaasibiya ci moom loo xam ni dafa mel ni comme acier buy xëccaate te loolu pourcentage bi mu am ci yaramu jigéen du ma wax triplé na waaye damay wax téeméeru na pourcentage bi am ci yaramu góor moo tax islam ni muy diglee góor mu solo dafay digal jigéen ba mu solo noonu parce que yaramam moo gën a sensible yaramu góor dafa am ay xëcc yoo xam ne dafay ñoddi góor jëmale ko ci jigéen te loolu ay acier la yoo xam ni mbooleen yaramu jigéen dañ ko caa monte loolu moo tax ni lislaam jigée jigalee jigéen bi soloo noonu mu nekk digleen woo xam ne wu mucc ayib la ngir loolee nga xam ne mu muy xëcc ku góor ci di indi musiba loola mën a dañ ba jeex tàkk wa laa sax mu wàññeeku donte mbonte moom du jeex ci bu sooboon suñu borom ni mu jeex jigéen moomu yàlla daf ko bindee góor munut dem bàyyi ko ni yaramam sensible moo ëpp fuuf ay yoon ni yaramu góor mel iblis alayhi min allahi laanat milliarati fi kulli lahda bi mu xamee loolu dafa jël mboolem ay jumtukaayam ak i mbaalam ak i caasam di ko laawee ay góor yu bari waaye mi ngi koy jaarale ci jigéen noonu lislaam yi du ñu demee ba xam loolu dañu gis ni seeni pexe pour mu jàll faw dañ koy jaarale ci jigéen ndax ñiñ bëgg a téqatal ñu tëj ñëpp mën nañ leen jaarale ci jigéen moo tax léeg-léeg da am ay genre organisme yoo xam day jóge feneen am ay def def yoo xam day jóge feneen yow doo ko foog yaakaar fekk ñi nga xam ni ñoo li tax ko xeex ñoo ko lal ca gannaaw solol ko mbub mu bokkul ak ma ko nit ñay foogee wasaare ko ci dund loolu moo tax nga gis ñuy exploité jigéen di ko utiliser ci façon bu nekk xattaa ci façon boo xam ne digg fa yàlla sax jigéen jékku fa donte loolu danañ ko gën a leeral insha allah kon yàlla subhanahu wa bi mu wàccee aadam soxnaam Hawa dafa am ay tëri yoo xam ne ay frontière la yu mu doxale ci diggante góor ak jigéen gis ñu bari dañ jàpp ne islam dafay jël jigéen da koy tëj da koy soxoree jigéen du liggéey jigéen du dé wallaahi islam demeewut noonu déedéet loolu ñi nga xam ne ñooy xeet islam ñooy waxee noonu axan kay jigéen mën naa liggéey islam da koy tëral ay charte mu doog a liggéey jigéen mën naa génn doxi ay soxlaam axan kay mën naa nekk waaye ci taw bu fekkee jaar na fa mu war a jaar waxoon kay jigéen mën naa dox ay yitteem comme ni ko góor di doxee waaye day fekk jaar na fa ko l'islam jaar na dér islam terewut xam nga tere ak organiser nit ki wan ko ni ko fii ngay jaar ak fële bokkuñu yàlla dafa def subhaanahu wa taala mbokk yi jigéen ci boppam dafa gaaw ci ñet ji góor jëmale ko ciy caaxaan loolu moo tax iblis bi mu xamee loolu dafa jël ay mbaalam laawee ko ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñi pour jot ñi nga xamante ni moom mooy góor ñi moo tax imam bu mag Sufyaan Athawri alayhi rahmatullah dem na ba am juróom-ñett fukki at ak wala lu ko jege te yàlla dafa dogal sax bëtëb ndeyjoor bi dafa yàq waaye day jël loxo bi sab ko ci bëtëb càmmoñ bi te naan man de li des sama li ma gën a tiit ci lu mën a fitnaal mooy jigéen ak a wax dëgg xam ngeen màggat mu yegg foofa yaakaar naa ni am na yeneen yu muy war a xemeem yu dul jëm ci ay jigéen kon jigéen ci boppam yàlla daf ko bindee noo xam ni pour mu ñoddi góor jëmale ko ci ay caaxaan dafa yomb ndax noon yi dañ cay lëmatu seytaane daf cay kasafu waaye yàqukaay yi tamit dafay daje ci moom lii moo tax islam dafay bëgg jigéen nañ cee la jublu ci ay mbiram nan ko yar nañ ko soril xam ngeen di yonent yàlla ba alayhi dafa jàngale jigéen bu xasee am juróom-ñaari at jëm fukk nañ ko teqale même ku bokkal frère am bokkal ndey baay bu ñu bokkati sax benn néeg bu ñuy fanaan bu ñu bokkati benn lal loolu nag maal asafi shadid saa bu ñu wàccee si ñu lislaam doon jaarloo yeneen conséquences yu ñu sóoraale woon dañuy dab xam ngeen système ni ñuy dundee tey permettre wul loolu parce que kër goo xamante ni ñetti néeg a fay nekk ak wala sax gën ñett bari sax ñaari néeg ko taal nga xam ne daanaka bàyyi bu nekkee fii maam nekk fële ah gorey gorey gorey jigéen ñi ñooy bokk benn néeg bu ñuy fanaan loola conséquence yi muy yaakaar naa ni fii ay jàngalekat ñi ngi fi bu fekkente ni ñoom xam nañ li may wax te yaakaar na ne ñoo ma koy gën a xam ñun ay jàngalekat lañ comme ñoom xam nañ ni mboolem yarkat yi xam nañ ni bari na yàqute yoo xamante ni mi ngi am tey société bi waaye mi ngi bàyyikoo ci biir ñi bokk ndey ak baay parce que dafa fekk dañoo jàdd ci yoonu l'islam fa nga xamante ni fan leen yonent yàlla bi jaarloo woon alayhi salaatu wasalaam gis nga loolu bi nga xamante ni noonu l'islam yi xam ko léegi dañuy fexe nan génne ko parce que dañuy jël jigéen léegi jox la ko ci image bu salte islam day muurloo jigéen da koy muurloo kanamam day koy wax bul génn xaaral ko kanam li gën a wér ci li ñu jàpp ci gëstu insha allah hatta al an mooy nekkut lu war dëgg la nag ki ko def def na lu baax ki ko ŋàññi kooku na tuub dellu ci yàlla soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu daawul muur kanamam amut ku la wax lu dut loolu kàcc na yonent yàlla bi musul am soxna bu dul muur kanamam ci jamono yi sa am na ñu ko doon def ñu bari ñi koy ŋàññi nañu tuub dellu ci yàlla yàlla subhanahu wa mi ngi wax ci tawba ñi nga xam ne dañuy saboote yàlla ak ab yonenteem ak ci def-def na nañu tuubaat duggaat ci lislaam ci xam xadi kafartum ba'da imaanikum am na pas-pas yoo xam ne wala wax wax wala def-def yoo xam ne boo ko defee yow da ngaa war a tuubaat duggaat ci lislaam parce que li nga def yi kéefar la day génn ci lislaam dëgg la nag am nga droit boo def bu ko def nga maaru noonu moo ne lislaam niwul force la de islamique waxul nit ki ne muuru lu ñuul te déedéet islam dafa bëgg jigéen ñi na sàng yaramam rek kay fa maa na ko sàngee na ko sàngee na loolu mooy li gën a wér l'essentiel lañ ko muurloo na ko muur su ko defee nit ñi dañuy jàpp ne dañu tëj jigéen dañ ko bu mu jàng déedéet axon kay na jàng bu mu liggéey axon kay bu aajowoo liggéey te sart yi tax mu mën a génn dem daje na dem liggéey ah déedéet yooyu yëpp ñuy jàpp ni ay baal la loolu ñuy silimal l'islam ñoo koy wax waaye jigéen ci boppam l'islam lëm gën a bëgg mooy mu sax ci biir këram yaakaar naa alquran léegi traduire nañ ci langue bare bari dem leen ci suratul ahzab sunu borom day yokk wa qorna fi buyutikunna jigéen li yàlla gën a bëgg ci moom mooy bu ma nee toog ci biir këram mooy li gën léegi li gën nag mën naa am waaye tamit nit ki man naa am aaji ci génn l'islam bàyyi ko mu génn comme ni ko yent bi jàngalee alayhi salaam ba Omar ibn al-Khattab dikkee ni ko jigéen ñi nañ leen tere bu ñu génn ci yent bi ni ko déedéet bàyyi leen ku am aajo na dem doxi ko di dellu si a Euh, tujowante ci ni ñuy saytoo jigéen xëy na am na réew yoo xamante ni xam ngeen leen ñu xam leen téléphone sax doo woote jot jigéen jigéen ci kër gi lay nekk jigéen du liggéey d'accord xëy na yooyu mën na nekk seen i mbiri bopp waaye dee l'islam d'une manière générale nga xamante ni lépp a ko bokk àddina bi yëpp moom genn ji la may nañ jigéen ci mu liggéey su fekkee aaja woo na ko waaye nag na sàmmonteeg la ko l'islam sàmmloo mu sàmm gis ngeen mbokk yi jigéen ci boppam loolu mu sensible moo tax l'islam digal ko aw yaramam na koy sàng bi noonu lislaam yi xamee ni jigéen ci boppam aw yaramam dafay ñodd te li gën a yàq da koy def dañuy fexe jigéen ji ni ko lislaam sololoo woon nañ ko futti bu mu soloo noonu li ko lislaam téye woon ci biir këram bu mu toogati noonu waaye li ko lislaam sant tamit mu góorgóorlu digganteem ak boroomam tamit du ko def su ko defee jigéen ji daal di génn léegi su génn nag commencé di nu mu tuddati provoqué ay góor moo xam ci ay wax moo xam ci ay jëf comme ni nga xamante ni alquran saxal na ko te yii may wax yëpp boo dellu suurtu ahzab ak suurtu nur di nga ko ci fekk aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi xam ngeen ni yàlla subhaanahu wa taala terewut yonent bi tamit terewuñ waaye dañoo organiser li nga xam mooy dund te farq bi na ci diggante tere ak organiser nit ñi war nañ koo ràññee parce que su boobaa ci la sax traite yi ñuy sànni islam dootuñ ko defati waaye kàddu yu ñaaw yi ñu koy waxe dañu nga xam ne mérité wuñ ko xam ngeen ni waxuma la islam ci boppam waaye loi yi nga xamante ne moo nekk fii ci réew mi suñu constitution boo ko liiree da ca fekk xeeti sol ko yu seere yu bon yi nga xam ni jigéen da koy sol même ci yi dañuy tere mu dugg biir école li may wax jàng ma bu ngeen jógee laaj leen ko gaar yi dañ koy tere waaye tere googu dem na ba nit ñi faaleetuñ ko moo tax gis jigéen ñi ni ñuy soloo sol ko googu lan la jur ci ay conséquences dafay dem ba bàyyi mën naa dem ba xeneen sax doom bu jigéen ñaata yoon ngeen dégg bàyyi yegg ci doomam bu jigéen ñaata yoon ngeen dégg frère àgg ci rakkam bu jigéen ak yu demee noonu parce que dafa am jaasilee boo nga xam nit nit la saa bu ko jigéen nene rek góor mën naa xemem jëm sa moom bu dee yaayam bu dee ba ak kum mën ci doon moo tax boo gisee ndax maanu te yegg na ci jigéen gi mën a soloo na ko bëggee na mu ko bëggee ci xeeti mbon te ñëw dugg biir classe jigéen gi nga xam moom day bëgg a dund diine mu soloo façon na ko lislaam sante ñu ne ko déedéet doo duggoog lii ci biir classe bi parce que da ngay influence yi lii du maanu maa mante mooy bi ñu bàyyee kee mu sol lu bonam kan la rey ab yéefar kii sol lu baaxam kan lay rey jullit ñi ak laakar yonente bi alayhi salaatu wasalaam pour man nan boole ñoom ñaar yëpp tere ndax xam nga nit ki koy tere la àttewul l'islam te laa san da ba'dal kufri ginnaaw kéefar moom bàkkaar nekkatu fa te li la kon nan boole ñaar yëpp accepté wala ñu boole ñaar yëpp dàq gis nga lii nag xam nga lu ko waral coow li ko waral mooy jamono bi ñu toll ñi nga xamante ni ñooy gën a xeex l'islam yàlla dafay def seeni doom ñoo ëpp lu ñuy dugg ci l'islam tey man maa ngi am ay contact yu may def ak ñoo xam ñu ngi France dañuy wax ni lii xëy par bis di tuub ci ay jigéen di muuru subhanallah dafa tiital sax seen nguur gi am na ku ma waxtaan ak jamono yi passé mu ne ma Allemagne actuellement saytukat yi dem nañ ba gis ni dañuy am ay jour yoo xam ni chaque jour six personnes dañuy duggandoo ci l'islam chaque jour laa de bis bu nekk bis bu nekk am na benn euh, sayit bara boom xam-xam ci borom xam-xam yi ay jamono ñu koy suivre ci internet ci loxoom ci biir Allemagne mu fay faju ay nit ñu bare bare bare bare bare tuub dugg ci l'islam am na ci koo xam ni médecin la bu mag sax ci médecin yi gën a mag foofu mu tuub tuddee boppam Mouhamed Saleh kon yooyu dafay tiital nit ñi parce que dafay xam ni influence bi ñoo ñuy def ay ay ay française lañu wala ay ay ay ay yeneen nationalité lañ yore dëkk ca dëkk ba ba noppi du mu l'islam gi xamante ni ñoom xamuñu ko loolu daf leen di su defee loolu ay sabab la jur yoo xamante ni fexe yi ñuy def nag mooy secteur boo xamante ni góor foo nekk dañ fa toogloo jigéen pour yàq seetlu lii ma la wax gis nga suñu portable yi boîte vocale yëpp ci ñi ma jot a xam waruma àddina de ndax su la dem soriwut waaye boîte vocale yi ni ci àddina bi seetlu ko arajo saudi rek ngay jot boîte vocale am góor wuyu la waaye ci ëpp ci àddina bi yëpp laax daanaka ay jigéen lan fa def dugal ci marché boo dem magasin yi léegi ay góor jaayatuñ waaye ay jigéen la ñuy solal bañ ñu ndugg juggaaral ñu toog fa gis nga benn doomu kimati nga xam ne juróomi dërëm lay jar sax buñ koy publicité faaw ñu jël ab jigéen mu ñëw gis nga mbir boo xamante ni ay puno la liggéey puno sa nga xam ne liggéeyu góor la dañuy jëli jigéen mu ñëw di ko publicité pour pourquoi parce que yow sa yaram bi ci boppam la ñuy jaayee marchandise bi te yëgoo moo tax ñaata ci ay jigéen la ñuy corrompre ci buntu bi beneen bi mooy duggal ci internet subhaanallah te li gën a mën a yàq tey ci kaw suuf bokk na ci màggetum golo googu ñuy wax google nga xam ni moom xamut lu baax xamut lu bon loo laaj mu jox la ko set loo yi nga xam ni mooy ñot bi jëme ci ak sànkute ak bonte wallahi boo doon ubbi site boo xam ne lañ fay wax sax ñu ngi tas benn góor ak benn jigéen buy fóonante foofu di la expliquer ici pour rek doomu ji nga xam ni moom caaxaan ak mooy yàlla moo ko tax a jóg loolu da koy yombal ay góor ak jigéen yu futteeku di sëy wax ma sax fi am ay tele sax yu koy xam nga am na benn télé télé télé boo xam xamatuma man la si lii moom kenn nettali wu ma man maa ci fekk sama bët di ma laaj ci lañ ma wax ni kii ci télé africain yi la bokk ay góor ak jigéen futteeku war nañ leen seen yaay juree woon de yii lan lay jural yàqu yàqu ci kaw suuf xoolal tey dafa dem ba société bi dafa yàqu-yàqu boo xam ni xale bu góor boo xam ni tollagul fu muy ràññee nday jooram ak càmmoñam lu góor gi xam ci jigéen xam na ko lu jigéen di xam ci góor xam na ko yàqute googu mooy crise bi ñu jural xam nga ne xel mënul nangu mukk jigéen solu ba yaram ni ñàpp ñàppaaral ci yaramam ci ay yéreem mu ñëw di jàng kooku laa sax jàng du mën a am foofu xatta kiy jàngale sax laax jàng du mën a am foofu parce que dafa am jaasibiye di dox ci diggante yaramu góor ak bëtëb góor bëtëb yaramu jigéen ba tëb góor yoo xam ni borom bi subhanahu wa taala soreele rek moo tax boo dee xool lu ne ni njaalo waxu bu leen ko def na ngeen ko sori kon jigéen ñi ci boppam nañu yeewu te xam ni wallahi islam li mu leen bëggal jàmm rek la nekk ci ñoom islam terewul waaye dafa organisé ñu xam ni yàlla subhanahu wa taala li mu bëgg ci jigéen mooy mu sàmm honneur am ah sàmm li nga xamante ne mooy saxsiyaam waaye sàmm li nga xamante ne mooy fadilaam waaye mu góorgóorlu ba nga xam ni amut lenn ci yaramam loo xam ni góor ko gis lu dul dafa joxe cante loola kon yii ay mbir la yoo xam ne mbokk yi tey jullit ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax wallahi mbonte yegg na foo xam ni ay xale yu tuuti xale yu tuuti da gën dañuy woote ay loi yoo xam dañ naan jigéen bu amee quatorze ans quinze ans boo ko mayee dañ lay tëj ndax maandu te yegg na ci loolu ñu tëj la plus xale bu am treize ans quatorze ans ñu yëkkati carte caga jox ko ngir moom fu ko neex na dem ànd ak ay wallahi boo dof dof la bëgg a dóor ko mbaa nga laal ko yow la ñuy tëj ci yii ay am réew moo xam ne nee nañ ay jullit lañ quatre vingt quinze pour cent ay xanaa quatre vingt quinze pour cent ñoo xam nee nañ ay jullit lañ waaye réew moo xamante ni nañ ay jullit bi askanoo balaa xol bi dagg rek ñuy askanoo ay mag mag yi ñuy askanoo ñoom lan woon ni parce que ay nit lañ woon yoo xam ne koo ca seen yaayam ma nga muur koo ca seen ay doomam te lu yàgg laax ñu ngi leen di yar waaye xalafa min baadihim xalfun adaau salata wattabau shahawat fa sawfa yalqawna gayya ginnaaw bi nag ay nit ñëw yoo xamante ni daanaka wax ci seen mbir sax yàqum waxtu la kon mbokk yi ñu way jur yi nañu yëgaat ni responsabilité bu rëy am na ci doom yi génnewuñ ci ay kaab génnewuñ ci ay ngund génnewuñ ci ay poulailler waaye ñu ngi génnee ci ay kër ay juif ak i yéefar juruñ leen ay julit ñoo leen jur ëllëg yowm alqiyama sunu borom leen wax waqifuhum innahum mas'uluun wallahi mbokk yi li ci dana baax le ay jiyaabaam bari ba dem aljana dese ko ay doomam téye ko lu tax parce que sunu baay yaruñu woon wanuñu woon lislaam danañ dem jàkka ja bañu fi dañ daan sol ay musique génn duñu wax dara dañ daan caaxaan ba am ay doom moom ci ñuy ngénte la bokk sunu borom mu ni waqifuuhum téye leen leen lu xew mu ni innahum mas'ulun dañ leen di laaj responsable njaboot way juri nañu tiitaat ci loolu wallahi nit dana dem war a dem aljanna jàdd fa dem safar te fekk responsabilité njabootam bu mu sàgganee woon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu mu delloo si waat umma bi ci seen diine yàlla na yàlla subhaanahu wa taala delloo si waat conscience jullit ñu xam ni yàlla li mu leen tëral loolu rek moo leen jural mucc ci àddina ak ci àllaaxira rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir allahumma inna nasaluka alhuda waltuqa walaafa walghina salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain